aja noonu la ñu doxaatee daal di dem foofu nga xam ne moom mooy ca Collé demaat xool li nga xam ne moom moo xew ca gaynde ba tey ak nga xam ni moom mooy Papa Ndiaye Thiou ak li nga xam ni moom mooy euh, di rendre hommage kooku nga xam ne ba tey nañ dem gaynde te ñëwaat léegi yeggali ba tey aca e eh, kii di Pape Diouf eh, kii di way nii di Pape Diouf ok pap pap pap <laughs> man la Aba xëyee rek jeex na maa la raw. yaa ne. yëg ngeen ni Aba maa ngi ñëw dal sa kaw ndax Dakar ne dort pas maa koy def. Ah! bu jeexee rek jeex na wax amul. mais loolu dama neex. na may ñëw ëpp na. mais Ndoye Gueye Junior te micro Dakar ne dort pas loolu. maa ngi ci samay garde yow Mandoumbe Binta Binta Camara bu ñu ñëwee xam ne mi maa ngi ñëw. du ma fi fekk du ma fi fekk. <laughs> Dakar la plus la Dakar ma démission ci réew mi ñàkk ko warul de. boo bëggee nekk ci jàmm de seetaan Dakar ne dort plus. annonce baa ngi noonu Ndeye Gueye junior ci biir Dakar ne dort pas plus barke yonent bi ñaari junior yi àdduna buy tukki danaan pacax. nee naa leen lu waay di waaj loolu na ko xaar ndax ñoo ngi ñëw. kon samedi waa samedi foog ma ñëw laal plateau Aba maa ngi ñëw. yëpp ay fay. ci àddina kon wéro. FM rek di daw. Futurs Médias ñàkk koo seetaan da am problème bopp. lan oh. nga a nga def déplacement ñëw ci soirée bi. waaw Papa Ndiaye sama xarit la muy sargal Pape Diouf. sama papa ñëpp xamee ma ak moom ma kontaan trop tey ci teew ci bis bi. am am nga jëkkër am nga jëkkër. amaguma dara. kii kan dama ko ñeme. kii sama xarit la. sa xarit maa bëgg may abaa ñaareer tax bëgg nga ab. abaa noonu la ma yebee. bëgg nga ko. waaw dama man ñemew ma. xam naa faram nangul rek. kii xam naa kenn mooy faram. xam naa faram xam naa faram. waaye du ma bëgg xam na ma dama yàgg waaye abaa demal toog kii xale bi koy xool da di ko bëgg sama xam naa faram kii maa xam faram da nga kon defaruwaat nii sa pour nga gën a sarme gën di la sarme di la sama yëpp sedd bi na dafa métti ni ngi ma bëgg jëkkër tamit non jaru ko ah. jaru ko jongo ma nga ba pare ah. mhm. tibboo nga man daay takk sëy laa am seet dafa metti takk waaw ah, dëgg la waaw seet ñaareer kooku toog nga takk takk ma rek amul benn problème takk naa la Dudu Faal gaynde la ah waaw eh, yow eh, ah, mais Collé mi lan la Collé lan la. Ah. nuyu naa la Fatou. maa ngi lay fay Collé. Mbaye Basu nu lay tàggee. Mbaye Basu. Mbaye Basu maa ngi lay ziar. ma lay nuyu nuyu bu neex comme ndar-ndar nuyu. tax jonga ma. gis nga ko de. lan moo tax bëccëg. <laughs> dañuy jéem rek. macha mais tey lu waral sa teewaay yi nga def ba mu baax ñëw toog macha lu waral lii nga def déplacement xam nga dafa guddi boo jugee rek mag bu jugee am na lu ko yëkkati doom lu la yëkkati Fatou Mbaye. waaw Papa Ndiaye moom dafa baax nekk nitu nit kon bu wootee ñëppay jóg. soo màggatee mbaa nga xar xaw ma kuy bégal gono yi mag ñi asa mignon papa Ndiaye Thiou sañse nga loolu waaye papa Diouf xaw na laa rey ak benn chemise boo xam ni tarkalla ay bul yu bare lañ ci def yu bari couleur lool lool lool ah, daal di koy génne ci tendance ah daal di def li nga xam ni moom mooy euh, fashion ah mu rafet lool lool lool